xerelu leen ma dellu marsiyaal baadul xuloomi saayibu laayaati ma jooy fi sagu mbàkke ak mbu soobe ndaa ca mbàkke baay bara u mbu soobe wuy say xu mbàkke dañ faati bala wuy jooy leen ma waaju xam ja yàlla wuy jooy leen leen ma sibtu bala mooyu man jàmm naj lu ab saax fu ñu jëlee ti géej gu fees guy duusu te dàq suukar dàq lëm coy bu so fu ñu jëlee ti ku nu waar ci yàlla te dinu dëkk dinu naat ci yàlla fu ñu jëlee ti ku nu jox ab dënk bi ndel nu ay jawaab te dinu dànk déglul ma wax la lëf ci ay jaloore maami Serigne Thierno Bousso déglul ma wax la lëf ci ay jaloore mami ma wax la lëf cay jaloorem ma wax la cay jaloorem yoo ni tuuti laa ca xam yu yem sëriñ Mbàkke bu so mbër mu nëbboo nëbbu la jàpp saayiram na be ko baatinam du siiwal ay mbiram lu dox di waatee ko goro ma xaama ba muy xale la teel a man ni xaama du faale xar baax soxlawul karaama naka mu jóg suubu ci listiqaama sàmmoog ragal yàlla tëdd duniyaa ji moo di danoom mësula jëfi bon yaa su juuti alxuraan su juuti julli moo tax jaam badaar ba leeram ya jolli sëriñ Mbàkke Buso jàngal na waa këram ba kenn du jeng senge këram jafal na jàkkay seng dem jàkka jaa ko taxa nu juute mus la fay faat mbaa mu tiim duute ajana makkata ajaale doomam jotu du mawlaaya sërifu laani mi du leen cay dërëm wala ginaaru du yewi ndaru góor wa tam du gaaru hadis yor ne nag yurus xuraana moo dee xam a ti maana sin mbakki busu du jëw du jëwloo ña fa moom day waare tey jajje kenn du ko jajoo ka xaare ku maatu moo lay tagge firi jaali sang la sang la la jaala la sëriñ mbakki buso la sakkal la sarax ñaanal la ramu la jàlli lay siraat jiital la ba war nu seexu bamba ba war nu seexu bamba maami Serigne Mountakha Bassirou ba wannu Seexu Bamba maami Serigne Mountakha Bassirou ba wannu Seexu Bamba fil jinaani ñu ni fa guus ñu de sikki diwaani sàmm na cëram ya masuñoo def lu araam sangi jigéen ña wuli góor ña banu raam du le gàq muslimin fi diini maalu yetimi du ko laal fii ni Serigne Mbacké bu sa jumaa ye Tuubaa ji moo ko rëdd jàkka mu jublu xibla mag mel ni Makka bis ni rabbina wajaahil musawa ak ci ndigalal Cheikh Bamba bàyyi Mustafa